di sant ñëpp di gërëm ñëpp alors li ñu fi dajale tey nag mooy dañoo baaxoo woon heure bu nekk di dimbalante ci suñu biir dimbalante sa yàlla tax dimbalante ci jaami yàlla yi nga xam ne yàlla dogalut seen loxo jot seen ginnaaw liñ ci man ci jàppale leen ñu def ko waaye également dimbale tam suñ njabootu politique gi nekk ci pare keppaaru président Macky Sall parce que kat njabootu président Macky sàll gi nga xam nañoo nekk fii tey ci biir région de Kaolack njaboot gu gore lañ njaboot gu dal lañ njaboot gu ànd ak sago lañ njaboot la goo xam ne xam nañ bu baax li ñuy def ak fi ñu jëm xam nañ bu baax li ñuy dox ak nan lañ koy doxee kon njabootu président Macky Sall gi nekk ci biir région bi yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu taxawaay bi nga xam ne képp kenn ci ñoom ba mu jëlee engagement ci ci suufu président Macky Sall ak bisab tey bougéwul xefut randuwut yokkatut taayalut ñëpp heure boo leen soxlaa rek ñu engagé wu taxaw ci sawet wet pour ñu ànd jàppale président Macky Sall loolu nag sax sax boo xam ne.

ñun suñu engagement ak président Macky Sall mooy lépp lu mu nekk rek ak lu mu bëgg a def ak lu mu xalaat ca xam nañ ne lépp lu mu bëgg wala ma di ko xalaat rek njëriñu Sénégal la intérêt Sénégal la moo tax lépp lu mu nekk rek buy calculer la calculer la région de Kaolack ña ca kanamam taxaw ci loolu lépp li muy xalaat bëggu ko di ko def incha allah na xam ne région de Kaolack mi ngi taxaw ànd ak moom engagement boobu ñu jëloon démb ak ki démb ñu ngi koy renouveler waat tey ne incha allah du ñu tàyyi du ñu yokkat du ñu décourager du ñu bàyyi benn bés ba kenn du ñu ruut fenn incha allah suñuy gudd ak suñuy daa ñu ko def incha allah ci keppaaram pour dimbale ko ba mission bi nga xam ne moom la porté pour Sénégal daañu ci ànd ak moom ba keroog mu koy valider incha allah. maa ngi wax ci tur mboolem kilifa yi nga xam na ñoom ñëpp seen déclaration yi seen engagement yi du dara lu may dimbale président Macky Sall ñu àndandoo ñun ñëpp joxante loxo ànd dimbale président Macky Sall loolu war naa del xel président Macky Sall pour mu xam ne bii région moom xaw ma benn waaye bii moom na ko leer na incha allah musul des ginnaaw ci wetam te du mos des ginnaaw ci wetam ci tey ak ëllëg. ak gannaaw suba ah, ci li xew tey li xew suba ak li xew ginnaaw suba duñ mësa tay duñ mës a des ginnaaw ci wetam incha allah te duñ nangu benn région jiituñu ci wetam ci engagement ak ci gëm-gëm ak ci ànd ak jàppale ko loolu incha allah lank nañ benn région duñu jiitu ci wetam